jëmale ko ci candidat yi nag loolee la waa Sénat daal di xam ne ni ki boobee commission d'enquête parlementaire ñu war koo ubbi nag ni ki ci ab séance plénière bu ñu daal di convoqué ci assemblée nationale ginnaaw plainte boo xam ne rek juge Ndiaye amal na ko boo moytuwulee mën naa annuler boobee commission d'enquête enquête quotidien dellu soir ci commission d'enquête nag yéenekaay bi ne boo moytuwulee nag dana jur ay jàppante yoo xam ne rek dina dox ci diggante député yi nga xam ne rek ñoom ñoo jege Amadou Ba ak ñi nga xam ne rek dañoo lànk Benno Bokk Yaakaar taxawaayu parti Pastef yéenekaay bi itam ma nga cay àddu di jëmale point acti nag àddu ba tey jëmale ci commission d'enquête parlementaire boobee ñu fas yéene amal nag ngir daadu saytu nag liggéeyub conseil constitutionnel yéenekaay bi dippee ko ba sub dëgg ci diggante ñi faral Macky Sall ak ñi ànd ak Amadou Ba yéenekaay bi ne APR yi doon jàppale libéraux yi nag jamono ji ña ngay tàmbalee dellu ginnaaw yeewi askan wi ak waa taxaw nag ñoom wii la ñu daal di voté ci commission des benn député képp nag moo daal di opposé ci lu ñooy jàppal tànk Amadou Ba ña ngay tàmbalee wane seen bopp benn par benn yan conséquence moo ca mën a am nag bu fekkente ne résolution bi nag jàll na loolee nag léeglekaay bi daal di xëy sampaap laaj di du Quotidien nag ne taxawal gi ñu fas yéene taxawal app commission d'enquête parlementaire jëmale ko ci ay membre yu bokk ca conseil constitutionnel bay dëgg tey jii nag la ko yëglekaay bi daal di dippee ci biir yéenekaay bi nag docteur El Hadj Omar Diop nekk ca UCAD ne assemblée nationale nag amul genn dayoo bu ko mën a may rek mu war jëmale ko ci dogal yi nga xam ne rek mooy tukkee ca conseil constitutionnel laas yëglekaay dellu siwaat ci plénière tey jii nag nga xam ne rek fas yéene nañu caa taxawal ab commission d'enquête parlementaire bu jëm ci ñaari juge yoo xam ne rek dañ leen di tuumaal lu jëm ci wàllu guerre ca conseil constitutionnel député yu APR yi nag ak yu PDS jamono ji nag ñu voté nag lu jëm ci wàllu motion bi yéenekaay bi nag ne procureur bi moom dafa daal di ignorer nag plainte bi nga xam ne juge Cheikh Ndiaye daal dina koy déposé ngir mën a satal aw dëram nag ci jamono joojee nag nga xamante ay recalé yoo xam ne rek ña ngay sàkku ci président de la république mu daal di jël ay responsabilité ma source à dellu soit nag ci ñàkkum preuve yi nga xam ne rek am nañu ko ñeel article 48 bu règlement intérieur bi nga xam ne rek mën naa xottete nag résolution bi nga xam ne waa parti démocratique sénégalais bëgg nañu koo taxawal nag mu di ab commission d'enquête parlementaire yéenekaay bi ne ñaari njuumtee ngi nii nag ñu nemmeeku ko ci waa parti démocratique sénégalais lu jëm ci présidentielle yu 2024 l'observateur niki tey jii nag ab taxaw seetlu la daal di amal nag jëm ci campagne bi nga xam ne rek war nañ koo tàmbali ñeenti fan ci weeru février yéenekaay bi dee lusuwaat ci marché yu mag yi nga xam ne rek ñi ci defarum affiche yi nar nañ koo am flyers yi t-shirt ak yeneen ak yeneen wax ci musiba mbaa ba kumba mi nga xam ne rek tey jii soleil yëglekaay ci la dellu mu di màbb gi nga xam ne rek immeuble bu troisième étage màbb na ko démb foofee ca xaar yàlla yéenekaay bi di la soleil ne juróom-ñaari doom yi adama nag ñàkk nañ ci seen bakkan fukki doom aadama ak ñaar daal di ciy jëlee ay gaañu gaañu vox populi ne kaawteef dëggantaan nag moo am démb ca xaar yàlla juróomi bakkan yoo xam ne rek dañoo faatu ci bâtiment ab troisième étage boo xam ne rek moo fa daal di màbb niki démb yéenekaay bi ne li waral bâtiment boobee nag daal di màbb ba na gëni si kenn xamagu ko waaye sapeur pompier nag def nañ ci liggéey bu am solo ingénieur du développement urbain bu ville bu ndakaaru Biram Diop nag ma ngay dellu soit ci màggataayu bâtiment boobee nga xam ne rek dañu ko doon yeesalaat 24 heures nag xëy tey jii di sampaplaajte ne kan moo ñu fas yéenee tàqale ak lu jëm ci wàllu corruption Sénégal ni si ma nga ca ñeen fukk ak ñetteelu place bi nag di ab position boo xam ne rek wane na ne guerre moom ba nëga ni si mi ngi wéy ci biir réewu Sénégal diirub ñaari at a ngi nii nag yéenekaay bi ne Sénégal deful benn jéego ci xeex bi jëm ci wàllu corruption libération moom dellu soit tey ji nag ci ab père de boo xam ne rek ñaari doomam yu jigéen la daal di tëj ci ab nekk bëggoon leen a faat police nag moo mujjee daal di dajji buntu ba nag ci jamono joo xamante ne nii tàmbali woon naa rendi doomam bu jigéen bi nga xam ne am na ñetti at moom Seyfal mi nga xam ne rek am na lu toll ci juróom fukki